ma dal fi ñaari xale yoo xamante ni nii euh, kii mu ngi bàyyeekoo fi nga xamante ni nii mooy Rëbës. Medina kii mu ngi bàyyeekoo fi nga xamante ni mooy Kër Massar sama góos maa ngi fi am nga xamante ni mooy caatu mboy mboy sama doole maa ngi fi am ki nga xamante ni mooy Milkzo mu nekk ñaari xale yoo xamante ni làmb da bàyyi xel ndax ku ci nekk yaa ngi def say ku ci nekk yaa ngi def li nga xamante ni nii moom moo la warloo ci làmb ndax kii di caatu mboy mboy bi am na 4 combats 4 victoires 4 combats 4 victoires am 4 combats 3 victoires benn yooyu noonu waaye yooyu yëpp dinañ ko leer Milkzo moo ngi tollu ci 7 combats 4 victoires 2 défaites ma bàyyi la ñu nuyoo ñëweel waxtaan wi Milkzo nuyu naa la. waaw ñu ngi lay fay wóos xam nga di fay gars yi toog yëpp di wax buñ bu sant yàlla jul si yonente bi. Mm-hmm. xam nga di nuyu waa Sénégal yëpp ak kilifa diine yi kilifa aada yëpp di leen nuyu. di nuyu waa Kër Massar bu ñu jógee di nuyu sama pa Ñaaxarañ Lo xam ak stafu Waali bi yëpp ñoom Amady ñoom Arma ñoom ñëpp maa leen bëggee xam nga di nuyu tamit képp ku nga xam day sonn si Milk Show quoi di nuyu kii caatu mboy mboy nuyu mm-hmm. waa Kër Massar mbooloo 100 pour cent Kër saar bi di jaale Moundaga sànq bu muy ñëw sama benn grand la jabaram gaañu quoi di ko jaale mm-hmm. yàlla yërëm ko xaare àjjana mm-hmm. di jaale sama xarit tamit maa ngi koy jaale bu baax a baax muy Moussa waaw di bëggee gaa yëpp caat nuyu naa la fay naa la Ouz maa leen nuyu di bëggee gaa fi toog yëpp di sant ñëpp di bëggee ñëpp di julli ci yéen di sant sama ñaari waajur bu baax baax maa ngi nuyu gaa yi fi teew yëpp di nuyu sama boy maa ngi koy bëggee bu baax di bëggee waa Mbombay sama dëkk maa leen di bëggee ñoom ñëpp di leen ziar bu baax baax nuyu waa Medina waa Rëbës loolu ñëpp di képp kuy bëggee caatu Mbombay di bëggee sama mbër mi Milou Bisso maa ngi koy bëggee bu baax. sa la. non mbër mi laa. ah mbër maa ngi koy bëggee mboy mboy mboy mboy lan la dëkk la walla lan la. mboy mboy dëkk la xëy na da nga ko xamul rek waaw boobu dama ko doog a dégg. Ah, fu mu nekk. dëgg la nga ñëw ba ndàngal ma nga wàcc. ndàngal ndàngal ma. ndàngal ma waaw nga jël droite. looy yëg fas. wala jakarta bu la neexee nga jël jakarta bu la neexee nga jël saret bu la neexee nga oto. mën nga ko dox. mën nga ko dox waaw. Hmm. Euh, gis ngeen mbokk yi ñoom ñaa ma dalal leen fii parce que nekk nañu ay xale yoo xamante ni nii euh, balaa amay ñëw sax ci loolu parce que Milkzo mi daf fi doon préparé combat am ak jeex. mais combat bi ñu ñëw ba ci digg géew bi parce que yaakaar naa loolu boobaak léegi leeralaguñ ci nga waaj combat ñëw ba ci stade bi simmeeku ba ñu présenté leen combat bi yàqu lan lan moo nekkoon problème boobu sa combat yow ak yow jeex jàmm. waaw sama combat mën ak jeex jàmm waaj naa ko ni ma ko war a waajee. Hmm. def si lépp lu si war xam nga yàlla nag mooy dogal quoi ah tey jii mënoon naa feebar toog. Hmm. ni du ma dem bëri ji mais pour man li ma daloon noonu sama tànk la woon ma mu metti mais pour man teroo ma dem bëri quoi. mais yaa ngi bi kañ la woon bi combat bi des ñaata fan la ñëw. tab bi bi mu desee 4 jours la ñëw. yaa lu gën a métti quoi ñu dem ba dernier jour combat bi tànk bi gën a infecté néew ci jour combat bi jour combat bi waaw tànk bi gën a néew infecté xam nga lépp rek gars yi wax ma leen non baal ñu dem rek ak lu mu mën a demee ñu yàq laamu ndax ay xale lañ xam nga lii mun gën nañ lu gën a métti lii dañuy dal ñu koy bëree yàlla def ñu dem xam nga ñu nekk biir làmb sax boo gisee nangu mu yëngul bëri ndax bañ mu sonal ma du ma mën a bëre damay manifesté wu tuuti ñëw toogaat après bañ jógee si géew bi noonu arbitre nu mu may làmbee mu gis sama tànk la ma ne ko lii moo tax ma ñëw ma def sama regroupement. mais est-ce xoolee di nga gis ne tab bu mag la mais bàyyi woon mënoon nga cee bëre. tab bi ma bàyyi naa si bëre naa bëre ba pare xanaa après ma dese métit bi quoi mais amoon naa jom bëre lu raw loolu barke Serigne Saliou après métit bi nag xam nga mais jour gëm naa ni bët buñ ci méngu woon boobu lu ma ko bëgg a dama koy def si sama tànk boobu laa koy defee sama mais nag loolu am na lu koy métti ay supporter nga ànd ak say mbokk ak say supporter ngi ñëw ba ci stade bi bëréw leen nee na yii nii xam yëpp ay xam nga waxee ko nee na noo xamante man dégg naa muy wax mais jeex jaamu bu ne xam ne ni moom carrément jeex jaamu ñemoo ma sax taxaw di xool ñemoo la xool ñemoo ma sax xool man du ma bëreeg sama morom mu ñëwee mukk billaay wallaay sama morom. mooy bii de bokk kii dafa am a jënd. bii de bokk ci. booy yi xam nga moo leen déranger. wóor na yàlla ñoom. Milkzo bi moo leen déranger Milkzo bi moo leen déranger. billaay xam nga Milkzo bi moom dafa jiitu sax balaa maa ñëw lu jiitu fépp loolu moo leen déranger waa moo tax ku si nekk da ngay bëgg dañ ko ba Milkzo bi xam nga des fois ñuy xool booy bu ndaw bi ñu ne booy bi mooy def lii kii mooy def lii loolu rek moo si indi. mais boobaag léegi temps bi moom say. boobaag léegi maa ngi sant yàlla bu baax ñaax dañ loo ñaax dañ loo wax dëgg fa yàlla moomu dagal bi Maroc ma dem Maroc faju xam nga mu ne ma nag man maa si papa dépp combat Balla ba léegi damay jàppal di ma defal lu nekk dagal ma biir Maroc ma dem Maroc am naa fa am naa fa mois deux semaines mu ñëwee tamit laa du waa si àll bi ñëw maa ngi entraîné nice instant yi mil ko zoor nice ah, kay ay vidéo kii ma jot a gis non maa ngi entraîné nice <laughs> booy nii waaw nekkul bu tey bu ñu wax ne dëgg billaahi war ma sax bëre booy man ñi ma daan tegal foofu sa loxo ma ñëw eh. sa diggante yow ak moom parce que dégg naa ci coow li bari na dëkkante bi lan nga lan nga lan nga xoolee Milky Zo ba ñeme ko wala boo bëgg a jëflante moom moo ko bëgg a daan te buñ bëree dama koy daan foo teg loolu dama xam ne maa gën ne xale fuuf bari oh, Serigne Bamba yéen ñii ay ay ay ay naataangoo ngeen ay billaahi bi muy bëre maa ci kaw tribune bi toog sax arène leer laa lay wax booy mën na ma seede barki Serigne Bamba damaa bëre corona ñëw. mais nag mais nag loo ci mën a xam ba xam ko ci ndaanaan la mën na bëre comme maam day métti day am xeex. kii mën naa ko jàngal bëre man rëbës laa ne. teel micro laa kii mën naa ko jàngal bëre. mën nga jàngal micro bi barki mën naa ko jàngal bëre. boo ne woon saako tàngal du maj day ñibbi <laughs> nga jël bi. yooyu wax ci jaaru ko. waaw parce que dafa mel ni dafa mel ni waaw dafa mel ni woo nañ ménagère am ci moom lay tàggee man pare naa. dafa mel ni promoteur yi ñoo ngi ciy dox mais yow fan nga toll joxe nga sa ako wala joxe ko. ba ma paree day tey. na ko jël wël man du ma témoin sama bopp. da ngay laaj ki defar sama licence muy Balla Gaye 2. Hmm. man nekkul amoo amoo sa ambition boo xam ni damay bëgg a nekk mbër far force. Hmm. dama doon ànd ak Sa Thiès rek nekkee xale ba léegi ak ñoom Balla. yàlla xam na loolu Balla moo ma forcé defar sama licence da nga far force da ngay mbër dama doon indil écrit géejawaay ay pongal ñu nekk billaay nekk naa kër Balla deux ans. yi mu gàddaa yëpp maa moom ñoo fa nekkoon ñu fanaan même lal billaahi nit mosuma fa daan mu foote ma ne ma da ngay nekk mbër far foofu da ngay li may bëre booy yow man dinaa nga naan ma dinaa yeewoo mbëbës si montagne yi xam nga yow di buuju di man foo ba tool ni ma tool ay buuj amul njëriñ xam nga lan am njëriñ bëre daan waaw loolu de am na solo moom bëre moom daan football dugal daan la ñu wax nag lam football dugal football dugal bi lool la nekkal buujumaan àndal daanal champion yi ci contact ak lépp nekkal waga boo ci àll bi ñu daan la amul njëriñ. dama la bëgg a xamal ni man damaa foo damaa foo yu bëri. ñu ni juddoo bawal nag ci àll bi juddoo ci kàddu ci dégg yi mboy mboy ma ci mboy yi. mboy yi di gën a nekk dañuy teg sax tournoi suñ koñ. Mm-hmm. barke Serigne Saliou yàlla moomu tiim ma jël tournoi mayaat leen ko man làmb soxlaa ko mos a xaalis xam nga ñoom la ma doon déranger làmb soxlaa ak mu sa xaalis léegi barke alxuraani karim booy bi mënumaa sax yëngal. mais léegi luy problème bi euh, ngeen di dëkkante fu nekk promoteur seet la nangoo goo jël avance booy bi. non man kii dëkkuwu ma dafa am ku ma woo. fekk maa dem benn jour combat la sax maa ngi am ku ma woo di ma wax ay waxam man ko caatu mbooy mbooy xaw ma ko. mooy mhm. wax dëgg rek da yàlla tax. man ko envoyé am photo mu envoyé am photo mu ne kii moo booloon ak Souleye Gaynde. ko mhm. ngi comprendre ma ne ko man de kii xaw ma ko mais wax dëgg fa yàlla man dootuma jël combat boo xam ne ma maa ko jëlee sama bopp laajal gars yi après tamit. foofu la jaxasoo bi am mais man kii ku dul moom sax barki alxuraan bu taxawee sama wet dama koy faxas jàll xam tamit nekkoon tamit loo xam tamit ay problème kase quoi ndax sama combat man ak ko doon dox Tapha Gueye waaw loolu moo woon quoi mu ni woon mu ni woon moom tamit problème de pile la quoi xam nga man leen carrément keneen bëri moom mais yàlla xam na ni sama combat ak Tapha Gueye 2 billaahi ñaax loo woonoo ko sax pour yokkal ko xaalis barki alxuraan xam nga teel laay waxee quoi woo ko pour yokkal ni comme que demee na nii xam nga wax ak lu ci war bu gars yi daawaree ñu fay lu ñuy fay ñëw. ah gars yi ñoo la xawoon bloqué. pour ah. pour pour nga mais yow pare nga pour. jëflante ak moom man pare naa pour bëreeg ñëpp man xale laa nekk ma fi naan damay taamu damay def lii. xam nga chaque saison damay bëri 4 combats dama taxaw fii di xaar làmb mooy sama métier am na yeneen ñu def mais yàlla moo def ñu bëgg làmb am ñu toog si ñun di sontu ñun bu ñu toogee bëriwuñ dañuy perte bu ma jël bépp xarañ moo gënoon métti ñëpp mm. ñëpp naan ma booy nga waroo jël bépp xarañ xool li nga toll ak kiirum toll ñëpp mere ma ma dem yàlla may ma si ndam te bépp xarañ moog ñii kenn du leen xool te di leen boole booy ay koocal la ñeen jox ay ay ñu nga xam ay ay caatu mbaaru sama sama combat caatu euh, fora moom lañ njëkk a dox fora da jël kële improvisé alliance Balde alliance Balde moo waral ñu dëppe ko fii mais man ak caatu fora moo doon taxaw parce que nañ ko après mu ne day xool ci la jëlee combat bële mais du naru ko mën taxaw ak moom. man mhm. dama dem sama bokkuma ak booy yi barki alxuraan. mais booy booy la ci biir booy yi de. suñ bëree woon du mat minute mosuma bëre lu yàgg maa ko tax xeex maa ko tax bëre barki Serigne Bamba. billaay walaay man <laughs> waxuma ba am li may def de man damay jëf bu noppi si saa li ma ciy dem bëriwul. mais mais mais mais lan moo tax lan moo tax nga ñeme ko parce que am na ko ma wax ne ma yéen ñaar dëkkante ngeen wala boog yow bëgg nga bëre ak moom. kii dama ko dama ko yàgg di seetaan dama ko seetaan naa ko toog Iba Mar di ko seet ci kaw di ko seetaan mooy leen kii bëgg na maa bëre moom su ma bëre moom dama koy daan parce que gis naa li muy bëre. lan lan ban ban ban défaut nga gis ci moom yaakaar ne soo bëree ak moom ko daan. bëri na bëri na dama koy daan ba pare door ko koo wax. lan ngay wax promoteur bi nga xam te ne mooy dox seen combat yi ñaar. combat bi gaaw ñu bëree dem seeti leneen su doonoon mois bi pare naa. dama koy daan wëri leneen. nii nii noppi nga. barki Serigne Bamba bu doon mois bi pare naa ci combat laa jógee. bu ñu fayee lu ko jar du génn marché bi. fay lu ko jar amul de mënoo tegalee defet di bëgg laaj kese bi. tegalee defet mënul nekk. fan laa tegalee defet. ñaar nga tegalee man si dama xarañ laa mujj daan. ngor mooma daan waaw ba mu ñëwee mag naa deux combats yoo xam ne deux combats la ni ba maara dafa daanu waaw non maa ko seetaan benn bi fëgala bu ngor da koo daan mu ñëwaat euh, moo ba doon a jeex jeex da koy daan <laughs> non loolu moom mënoo ci xam daal ndax jëflanteeguñu waaw ku lay daan da lay ñeme sax wóot barki alxuraan du caaxaan booy nii billaay wallaay ku ma si dajale ma lay teg lu métti booy nekkul sax man ak ñoom lu ñuy bëre sax boowul barki yàlla muy ngi dégg mu ngi wax ay waxam naa ay caaxaan fora buñ bëree ñu teg suñu reliquat ku arrière xam li ngay wax nii waxum barki Serigne Bamba est-ce que tamit est-ce que tamit doo doo dagg tuuti yokkal ko ngeen jëflante dëgg la ma la man côté prix garaawul man barki alxuraanu karim fay fay nañu wataay fay mbër mu bañ ma jël sama reliquat am matalil ko ko. waaw mais dama dégg léegi ci waxam mu ne bu promoteur fayee lu ko jar gannaaw yow yaa bëgg a bëre ak moom kay nel promoteur nañ cof nañ bu ñu ma war ah. baa ngi seetaan léegi. <laughs> suñ ma fayee lu ko jar combat bi génn mois de mars bi ma fayee lu ko jar billaahi ma sëgg bëreeg mbër yu bëri dañuy dawe kase Mhm. mbëri bëri dañuy dawee kase wala ñuy dawee sama staff. Ah, dañ naan liñ ma fay baaxul. fekk dañoo bëgg a daw wala ñu ne sama grand bi xam nga. sama grand bi te grand bi yoonam ne xam nga yow muy wax ak yow rek ma la sama grand bi rek da nga naan grand bi moo ko moo yàq combat bi. waaw loo ne mbër bi fekk mbër bi moo yàq combat bi. da see bëri si mbër yi. mbër ragal si biir.

deux défaites teglegu ma ko dama daan Bébé Xarañ ñëw fëgal ba fëgal ba ngor daan ma après laa ñëw maag Bébé Xarañ jeex na li ma mosam beneen défaite. seetaan naa say combat waaw li ma mosam beneen défaite Bébé Xarañ <laughs> waaw booy ma wax loo waay yow. waxal da ngaa war a wax. booy seen booy mboor mboor bi jël addunam yëpp def ko ci galaaj jël lépp. galaaj amul baal galaaj gis nga galaaj bu doon galaaj ak galaaj. xoolal uus mii dem bëre ji. xoolal fii ku fi ah, yaakaar galaaj mën nga toog billaahi wallaahi wa taalaahi ku fi yaakaar galaaj dama nga tëdd. xoolal da ngay entraîné boobu lamb ji entraînement la da ngay liggéey lu metti booy boobu noonu. mais boo jëlee boo jëlee sa combat ñëw négocier ko teg ko ci boo ñëwee dañ lay def. loolu yéen a koy def. man su may bëree ma lay bàyyi nga nekk nga ñëw ma jàpp la bëri loolu weer ma la jàpp kii ma ñëw buux la rek nga daanu ñi ñi naan ay yéen yomb. lan moo tax lan moo tax dem ci sëriñ. lan moo tax muy dem ci sëriñ day aar boppam. waay yow laa yi laa amul bu lay wax loolu nga war ko gëm bu fekkee ne nitu làmb nga rek

ñëw wala li ma ne yow booy caatu mooy boo taxee fii tey jii di wax ay lii la rek mais barki alxuraan ñi la ñi la ñoo la gën a xam ni carrément amoo sax bëri bu daan mel gisoo. wallaahi kon du ma la jël kon ma wëri keneen. barki Serigne Bamba su ma leeree moom laa daan du ma la man bëgguma man dama bañ defet. dama bañ defet man du caagan dama ñëw daanu dem sama yoon de déedéet ñi topp sama ginnaaw laay xalaat moo tax dama bañ defet soo may rey ci géew bi sax du ma du ma dooma daan barki Serigne Bamba. mbokk yi gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo euh, woo ñaari mbër yi ñu waxtaanee ko xool fi nga xamante ni fa lañ jóge ak fi ñu bëgg a dem mais mbokk yi combat bi gannaaw ñoom ñaar ñu bëgg nañ damay ñaan rek yow promoteur bi wala ñi nga xamante ni nii bëgg nañ combat bu neex nañu dimbali rek taxawal ñu lii parce que lii affiche la boo xamante ni nii mën na bootu ci ay combat yoo xamante ni nii grand combat spécial wala leneen ak leen mën na cee bokk entraînement yi fan nga ci toll. waaw entraînement yi. may entraîné gis naa xam nga maa ngi def lu ma longue distance saf sap tourné arrière physique def ma pour entraîner pour jël volume ay noonu na entraîner pour wow kongu xam de la cinq sama carrière man dama koy rafetal li dee sama carrière yëpp du ma nangu benn bojo bojo di ma ko yaaxal te booy yi nii xam nga boo leen kii ma ko daanu tey du ma yóbbu fenn ay caatu mboy mboy su ma demee gars yi laaj ma kuy caatu mboy mais gars yi ñu bëri xamuñu ko. Milkzo nag yàlla mooy dogal lu muy dogal bu waa yaa ngi comprendre man tur yàlla moom ma ko teel a yëkkati nekkul dara nekkul dama ko liggéey du dara yaa ngi comprendre mais yàlla na ni carrément billaahi wallaahi sama combat ak yow tur dañ koy liggéey de sama combat ak yow waaw loolu da am na moom nga xooloon mbëri ba jàll fu ñu mujjee ak mbëri ba wax ne kii yi muy wax ni yëpp ay kii ko sax billaahi déggoo boo ma joxoon avance léegi ma ma ba ngeen fii àñ mais nag wax ji li muy bëri bëri kii yow ngeen seen combat taxaw ak lu bëgg fi mu toll nii loolu moo ko tere neex man ku ne xam ne ni xaalis du ma boole nit man du ma du ma laal sax sama kasa làmb laal ñoom Xaadim Anta Seck ñoom Pape Demba ak Ndoye sama ménageur man sama kasa làmb bu ñëwee dama koy jël seetal ma ko laal nee naa xaalis instant soxlawu ma ko instant bi làmb mënu ma may man maay may ba maa ciy jël sama xaalis di ko ci def ay man sama combat bu ñëwee lu mu deeree sax sama làmb dinaa yëkkati lu ma 500000 ko ci xam ak ñi may jàppale bokkut ak lu may moo tax mënul respecté làmb moo tax mënul respecté làmb man dama benn jàppale sama booy ñooy def seen mille 1000 francs seen i 2000 barke Seydina Mohamed amul autorité bu ma sa bu ma mos a may 100000 amul sama combat mosu ma may sax 50000. barke alxuraan ma ci teg sa bakkan moo tax ma ci sama bakkan xam ne ginnaaw ma jàppale maa war a rayante ba am jàppale barke alxuraan muy autorité lu mu mën di doon sama combat mosu ñu ma may sa 100000. wala ku lay jàppale day fekk mu gisee ay qualité mais à chaque fois maa def samay preuve ñu am combat ñu génne ba may mbapat ba léegi mosuma daanu. laal ma ginnaaw mosul laal suba ma tàkk yëpp ba léegi ma duggee ci arène ba léegi ma pat dëkk ba ba fii mosuma daanu sama ginnaaw mosul laal suuf saa yi ma xalaatee booy def seen mille francs seen i deux mille mu leer man amu ko ma may cent mille francs damay damay rey sama bopp mais nag kii est-ce xam nga ne bu seen combat taxawoon parewul sax yow pour nga koy andi ay difficultés di ko sonal dama koy déranger kii barki Serigne Bamba suñ bëroon ma déranger ko su ma jàppee ngeen moom li ma neex laa def suñu combat bu taxawoon tey jii billaay dama lay wax leer nañ teel micro bi combat mhm. barke Serigne Saliou Mbacké laa la waatal fu foo mënta nekk nga rasu ne nga ñeg daw dama lay jàpp def lu ma la bëgg a def fat force loolu mënul nekk ci dara xam nga dama mënul nekk gën a xale kii nag fi barke Serigne Bamba maa ko gën a nekk xale barke alxuraan waaw jërëjëf bi ma dugg si lamb ñu bëri dañ ne ma ma bëri barke alxuraanu ñaata at nga man 2000 laa judd boobu bi mën na ma seede moo ñaata 22 ans. <laughs> barke Serigne Bamba xale bu ndaw laa barke alxuraanu karim gëmoo ko nag. <laughs> man bi may bi may bi may bëri arène barke Serigne Salim Mbacke samay grand sax dana ma bul duggagul léegi dafa teel barke alxuraanu karim ma ne leen ma bëree. barke Serigne Saliou. parce que waxu la wax maa gën a xale loolu. loolu man man sama at dama ko nëb man 97 laa judd 8 avril. bàyyi ma gën a ma dugg la 3 mars 3 mars laa bëri sama premier ma nekk xale bu ndaw boo gisee ñi may jàppale nag maanaam tey wala Serigne Saliou bu bu demee ba làmb ñu sumeeku bu dama xool xool ma barke Serigne Saliou tey ji ñiy jàppale ñëpp di mu gis ma doy man bu dul dara loolu yàlla moo koy def ci la yàlla moo koy def day am ñoo ne nii day am ñoo xam ne nii ñu ñëw ci làmb am jàppale comprendre nga am ñoo xam ne ñu ñëw ci làmb duñu am jàppale la moo tax nga ne bu ngeen yéggee stade bu ngeen sumeeku mu la waaw dama koo naxee ñu bari <laughs> jël sama avance ki ci mujj ci su lay gaane moo si mujj xam naa la ko grand bi waxee bi ñu fa doon daal ko nga boole ko sa palmarès rek garaawal barki Serigne Saliou vocal su ma déggee wax ji mooy ni nga toll nii boo ñëwee ba si diggi ba bu simee ko danaa noo Milkzo noo du booy bi laa loolu lay wax billaahi wallaahi loolu lay wax da ngay sekki sekkiwu ma barki Serigne Bamba sekkiwu mais damaa xam ne kii nii nii nii buñ paree maa ko doole ñaari yoon. waaw samay tànk sax. ku bëri ku tiim bébé xarañ. Mm-hmm. ay bébé xarañ yëpp amul saa li na ci bébé xarañ newul si man. tiim tafaaleer bu tawal li na ci tafaaleer newul si man. ñoo xam ne ñoo la yaa dégg nga ñoo la laar motul sax ñoom kenn ku si nekk bëri maa ñoom une minute du barbaru tafaaleer. ki su ma neexee ñu téye barke alxuraan du bëree su ma neexee ñu jàppante ma téye bëree bi barke Serigne Bamba du bëree. luy loolu. non affaire comédien la barki alxuraan. téye bëre bi du bëre ko jàpp ci mystique wala da ko jàpp ci mystique déggoo li ma la bëre laa koy tëj du bëre. dèjà dèjà yaa ngi yaa ngi wane sa bopp. yaa ngi dirisé dafa leer. day ñëw téye bëre bi man nee ko nag. moo téye waaye bëre bi ba mu neex ma mu bëree daan ko. déggoo ma de xam nga affaire xale. boo nekkee xale da ngay ñëw ñu fay la xaalis. nga ñëw yëngal jëflante mu neex amateur yi kontaan amateur yi bëgg ñu xeex mu neex sa kanam naaj wala mu dem arrog yooyu loolu dafa neex mais la mooy nga ñëw làmb téye sa boobu. xam nga dama ko dama ko dama ko bëgg a li may wax moo tax ma wax ko loolu. déedéet li nga wax nii. tey ba mu neex ma ban Milkzo ban Milkzo la ma déranger ko bëree daan ko. <laughs> ba kenn dootu ko xàmmi. kenn dootu ko xàmmi. gis ngeen mbokk ni lay demee ci jàmmaarloo ni lay demee ci jàmmaarloo ma bàyyi la ñu tàggatoo euh, ñu wéyal waxtaan bi beneen yoon tàggatool. waaw maa ngi bëggee ñëpp nag xam nga di bëggee képp kuy bëggee caadu mbomboy maa ngi lay bëggee bu baax a baax mhm. sëñ sëñ xaarim jaxate maa ngi koy siyaar bu baax xaarim boobu ma fayam di waa sant waaye ki bi yëpp xam nga gars yëpp am nañu ay ngi leen di ñaanal ndam bu baax a baax xam nga di bëggee ñëpp Medina bi yëpp maa ngi leen di chair di siyaar waa marché Tilène bi ama seen fay képp kuy wax yogal ma jaay la maa ngi lay bëggee bu baax di bëggee laay sama doom day di nuyu sama booy maanaam Ibou maa ngi koy siyaar bu baax ak Tafa sama jarba maa ngi koy bégee bu baax a baax di bégee Mbaye Mbombay ma ne waxal maa ngi koy ñaanal ndam bu gaaw a gaaw Thiat maa ngi koy ñaanal ndam lu gaaw di ñaanal équipe Rebeuss bi yëpp ndam yu gaaw a gaaw rek sama doom day maa ngi koy ñaanal ndam tamit ngaa la déranger noonu ba si VIP ñu leen ñaanal bu baax a baax ay ndam yu kawe seen jor di sant kenn si man Saër Dieng maa ngi koy sant bu baax tey jàpp sama combat di bëggee waa Rafinel bi yëpp booy mbomboy sama doom day maa koy bëggee Mamadi Double Moteur maa koy bëggee bu baax a baax combat bi jàpp na si xam nga. bu baax di sant waaw di sant waa mbomboy yëpp amu seen fay. barke Serigne Bamba maa ngi sant bi yëpp yëpp yëpp amu seen fay dañ may jàppale xam nga yëkkati seen i 100 francs seen 200 xam nga jàpp gëm taw bàyyi day baax. di leen wax ne xoolal amul découragé làmb ñun dañ see bokk dañ see am cër bu baax a baax xam nga kii mënuñoo déranger ci làmb déedéet xam leen loolu su combat bi taxawee barki Serigne Bamba xoolal na woon fa woon dama koy duma daan ko lu leer laa leen di wax. di bëggee ñëpp nag di bëggee laaj sama doom day xam nga waa Mastilé bi di san ñoom Moussa Faye am di fay xam nga ñoom Baye Daaw xam nga bëggee ñëpp daal soo limee xam nga da ngay juum xam nga di sant Fallou maa ngi koy bëggee baax moom xam na maa ngi koy siyaar bu baax baax a baax di sant ñoo sama mag yi ñoom Mor Talla xam nga ñoom Fallou ñoom Aziz ñoom Ndumbé xam nga Sall Diouf maa leen di bëgg baax ñoom Wëz xam nga ñoom Ndoof sëñ Bagé xam nga ak mafia 444 bi caatu Mbombay bi maa leen di bëgg bu baax a baax a baax di leen wax ne tamit comme noonu la rek saa yu ñëwee ñu songu duma daan xam nga di bëggee ñëpp ñëpp ñëpp su ma limbee rek xam nga da ngay juum waaw comprendre nga mais képp ku ma tudd sa tur rek jàppal ne dama laa fàtte xam nga xel day fatu te temps bi moo ko mayewul quoi. Mhm. maa ngi bëggee ñëpp di bëggee àdduna xam nga maa ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuma barki Serigne Bamba. Milkzo. jërëjëf jëloo buum si mboy mboy bi rek xam nga waaw di bëggee waat sama papa ñaaxarañ loo rek. Mm-hmm. di bëgg SF Wally Seck bi yëpp. di leen bëggee ndax tey jii Milkzo dama dama nekk si yeneen loxo yoo xam ne carrément dañoo jug pour jàppale ma. Mm-hmm. Baara Gueye bu Imaama Label ñoom ñëpp xam nga di leen ziar bu baax a baax. di bëgg nag waa Kër Moussa mu jugee yëmbal buul di bëgg waa Fouta. bëgg Balla Gaye 2 ak Sadio 2 di ñaanal yàlla seen papa fu mu jëm gën a fu mu jugee. amiin parce que ñu ama adjoint bi suñu adjoint chef de bi mooy adjoint chef de quartier kooku tamit sama paabal daf feebar di ñaan yàlla fëgg bopp bi muy Ibrahima li di bëgg ay doom Jamila borom Belgique ak kinni bu ndaw Ibra borom Belgique ñoom Ousseynou ak Seydou ak seen doom di bëgg sama nijaay xam nga sama nijaay bi jël maire bi di ko ñaan yàlla yàlla na ko jig di ñaan yàlla suñu maire koñ bi ko ko jël Adama Sarr ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may kattan bu mu ko jiitee ak expérience bi lépp ndax nekk na jeune boo xam ni yàgg na ñoo bëgg mu toog yàlla jàppale ñu nag mu ngi sant yàlla wér-wér ñoo defandoo lépp yàlla may ko mu gañanoo maire bi xam nga nga ko nag na liggéey de mais ñi day liggéey liggéey de day liggéey daaxal naax Moustapha Mbengue kay def ba ñëpp wadal ko na liggéey incha allah ba ñëpp gis ko di bëgg waat waa Kër Massar di bëgg dawal ko saret di fa nekk sama benn booy bu ñu rayoon fan yee Moussa benn dawal ko saret sama combat bi di ñëw combat am lay nekk di woo dawal ko saret nekk jàmm gën a fépp Moussa nekk na booy boo xam ne borom baax la ñu ray ko si ëral noonu di ko bëgg waat bu baa a baax di ko ñaanal yàlla àjjana fiir bi di ñëw bëgg naa wax defal lu garaaw xam nga surprise bu garaaw jël ndam li jox ko barke Serigne Sallou te incha allah rabi amul benn boy bu taxaw sama kanam téye lool noonu li ma ko bëgg defal dama koy defal jour combat bi. bu dee fii xam nga di bëgg nag Ousseynou. Assane moom du jàll xam nga bëgg Ousseynou Assane ak Adama Ly ak Jamila ak Batoli xam nga ay Mama Dia waa Thiès maa ngi leen di bëgg ñoom ñëpp di bëgg ñoom téef ay Talla Papa waaye ñoom daam tatouage kat di Bamba xam di bëgg jatu ak yaayam ay ñoom Sala ñoom ñëpp waa Kébémer waa Kër Massar buun bàyyi ma kenn képp kuy sonn si Milk Zo maa lay bëgg bu baax a baax di la bëggee woos yow mii borom baax nga xam nga di la ñaanal yàlla tamit seen site bii nii yàlla nekk site bu gën a réy si monde bi barke Serigne Saliou Mbaax gars yi leen suivre bu baax baax di ñaanal yàlla seen réalisateur rek ñoom ñi ñëpp tamit di leen bëgge di leen ñaanal di ñaan yàlla dëkk bi yàlla na fi jàmm yàgg waaw di waaj nag Milk Zo essant bi pare na maa ngi nii xam nga zéro stress laay doxee barke Serigne Saliou di ñaan yàlla sama combat bu taxaw insha allah rabbi yàlla di laf cat ak lamine ndax dara teewul loolu cat ak lamine waaw du booy ñoo may téye nag di wax waa Kër Massar ñëpp seen doom ak nii bëgg 100 pour cent saar Massar bi ikir Kër Massar mbooloo bi jaxaay ñoom boy sey ñoom joxeel di ko ñaan yàlla may ko ndam ak képp ku am combat si yàlla may ndam ci barki Mouhamed di ngeen bëgg waax gis ngeen mbokk yi noonu lay demee ci jàmmaarloo kontaan naa ci ñi nga xamante ni ñoom laa fi dalal caatu mboy mboy ak ki nga xamante ni mooy Milkzo li ñuy wax rek ku dul may bopp mu am jël gis ngeen ñoo ngi ñuy signaler temps bi jeex na di jox dig daje ak yeneen mbër yeneen jàmmaarloo ak yeneen réalisateur yu bees góor jigéen maa ngi bëggee ñëpp di leen jox dig daje ba beneen yoon jaa ngeen jëf